jërëgéen jëf mbokk yi ba léegi ñu ngi fii ci Hisnul Abrar ci tool yi Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir yi nga xam ne mi ngi nekkee fii ci biir Jolof euh, liggéey bi di wéy xam naa nag euh, dafa laaj tamit ñu leeral ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñu xam bu baax a baax suuf si fan la jaar ba agsi ci Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir ak tool bi ni nga xam ne noonu la yaatoo ak liggéey bi nga xam ne moom lañ fi def ñu ci euh, dalal Serigne Fallou Galassila ñu ngi leen nuyu di la Euh, ñu bala nga nuyoo rek nga enchaîné waale ak euh, suñu question mu jëm ci suuf si fan la jaar ba tàbbi ci loxo yi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadir. jërëjëf sëñ Fallou maa ngi lay di la ziar di nuyu euh, sëñ Fallou mi nga jàkkaar lool seen mbokk Fallou Gala si la ko wax ak yéen mel ne kon ñetti Fallou ñoo jàkkaarloo bi laaj Fallou la bii tontu Fallou la bii cam bii filmé Fallou la loolu bokk na ci xar baaxi tool bi. waaw liggéey bi mën naa wax ne tool yi sëñ Bass 19 2011 2012 jëpp 2013 la ko tàmbali woon di toppatoo. yebal fi benn doomu nijaayam bu ñuy wax sëñ alaaji Fàllu Buso moom sëñ Abdou Karim moom moo doxoon diggam ak suuf si mu di ko lijjanti comme ni ñu baaxoo di lijjantee suuf dem ca communauté rurale ba def ab demande bind ko jox leen ko mu def ab demande bind ko jox leen ko ñoom ñu dem xool ba xam danañ la war a mën a may wala duñ la war a may laaj la li nga fi wëgg a def lu mu doon lan nga fiy def ba nga wax leen ko lu leer nañ ñu ñu ànd ak conseil dem daje nga yónnee leen jox la nga war a jox conseiller conseiller daje wote ko ba ne may nañ la suuf buñ la xasee may suuf it daa desaat yeneen beneen lijjanti mooy def délimitation délimitation ñoom conseillers ñooy ànd ak commune bi def ko bañ defee délimitation ba noppi nag mu des ay bornage ñaari façon bornage am na lool lépp ab lijjanti lay doon boo xam ne danga koy jaar ci fi nga ko war a jaar eaux forêt am na ci wàll mairie bi am na ci wàll euh, préfet am na ci wàll gouverneur am na ci wàll loolu danga koy topp ba ba ngay dem Louga ca gouverneur ba bañ defal la ay kayit yu leer nañ ñi nga am droit nag soog mën a ñëw ne dañaa jël sama suuf soo ñëwee ba war a jël suuf si day defaat beneen lijjanti lijjanti bi mooy da ngay ànd ak eaux forêt yi ñu wër tool bépp xam garab yu mag yi ci nekk ñaata la ñoo la bala nga koo dagg da koy fay ndax kenn du dagg garab ci àll bi looloo tax nga ñuy jàpp eh, ñi nga xam ne ñooy dagg garab yi buñ ko wañ wëree tool bi xam ñaata garab la Cheikh Bass dafa génnewaat xaalis ñu dem fay garab yooyu daanaka à peu près début bi ci nekkoon maroon naa jege 4 millions nangam kon mu fay garab yi boo ko fayee ba noppi nag lañ ne la may nañ la suuf si wutal nañ ko kayit fay nga garab yi am nga ci wala bal na ci yow léegi li ci des mooy nga nga fay ànd ak waa EOFOR ñu defal la borne wañ lañ la may bi mu ànd ak waa EOFOR ñi liñ ko may 12 kilomètres carré la wet gu nekk 3 kilomètres la suuf si ci boppam dangay ngay jóge Touba ñëw Sadio ñëw Gassane jóge Gassane jëm si Thiel boo ñëwee ba tolloog buntu parfo bi buntu bu njëkk bi moom ngay topp rance de doli bi boo àndee moom ba ci bunt bu mujj ba ci wetu gànnaar gi ba féete penku diggante ak tool yi un kilomètre lay doon foofu la tool yi tàmbalee eh, sës rëkk ci eh, ci range range bi bàyyi ceel ci eh, Saalum gànnaaram mu nekk foofu nag suuf si itam bi Seex Bas jotee da koo daal di nag woote nga xam ne kon lijjanti bi mën na fukki at ak nangam bi mu jotee ne la sa ko am ndigalul mën koo woote gor la ko mu santaane ko ñu ñëw fi altine talaata àllarba alxames tey di ajuma ci la Seex Mahamadul Basir ñëw seet si mbooloo mi gajj nañ fi un kilomètre cinq cent un kilomètre cinq cent vingt gu nekk lay doon am na ci sax côté boo xam ne far na jàll six kilomètres yëpp dañ koo gajji ndax mbooloo mi ñàkkoon xam dëgg-dëgg liñ ñu war a def biñ gajee lépp nag ba àggal mu des fi ñu war ko taal dindi nañ ëkk yi dindi nañ yenn garab yu mag yi ndax suuf boo koy liggéey boo dindee ëkk yaag garab yi yëpp du ngelaw li duutu am lu ko téye loolu day gaaw a sappil suuf moo tax ñu bàyyi fi yenn garab yi ak yenn xur yi ndax mu mën di téye ngelaw li ak suuf si waaye noppi na ba nga xamante ni daal ku fi bu tawoon bu ñu fi indee matériel man fee liggéey loolu nag euh, moo ñu fi indi woon daara ji mi ngi tudd xisnul abraar sëriñ Mouhamadul Muntaxa moo ko ko tuddee tudde ko xisnul abraar Thiel li daal mooy liggéey bi yàlla dogal na liggéey nañ ko ci juróomi fan lépp noppi na ñoo ngi xaar sëriñ bi ngir bu mën a ñëwee wax ak mbooloo mi jërëjëf euh, sëriñ Fallou Gallassi la ci leeral yi am solo yoo nga xam ne moom la def fii ci tooli Hisnul Abraar yu Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir dégg ngeen euh, fi nga xam ne fa la tool yi jaar ba tàbbi ci euh, loxo yi Serigne bi kon liggéey bi mat na taalibe yi defee nañ ko ni nga xam ne noonu la ko bi bëggee ci diirub juróomi fan yi ndax liggéey bi ñu ngi ko tàmbalee le 7 di altine euh, le 7 mars 2022. tey jii ci aljuma ji euh, liggéey bi euh, matt ñuy xaar Cheikh Mahamadul moo moom euh, Serigne Abdoul Khadir Mbacke ñu koy ñaanalaat mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ci biir tool yi ngir mu mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ginnaaw bu nemmee ko liggéey ba noppi fas yéene yëkkati ay kàddu ngir yeewi leen ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko fii ci xisnu Abrar kon mbokk yi neskis incha allah da ngeen am kàddu yi Serigne Bachir Mbacke moom Serigne Abdoul fii ci Hisnul Abrar ci tool yi nga xam ne mi ngi nekkee fii ci Jolof